dal leen na jàmm seen émission sans filtre euh, di jotaayu ndaw ñi euh, fii ci réew mi FM lay amee mercredi bu jotee 15 heures jàpp 16 heures euh, tey ñu dalal Fatou Kassé initiatrice du grand carnaval de Dakar ak Babacar Niang directeur artistique Abdoulaye Dione moo yore communication bi ñu fas yéene waxtaani culture ak jeunesse ku ci bëgg participer 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 ma jox Fatou Kassé kaddu gi mu nuyu mbokk auditeurs ak auditrices Rewmi FM. donc directrice générale euh, Labelcom et puis organisatrice Grand Carnaval de Dakar donc maa ngi lay nuyu. Mhm. di la remercier euh, di nuyu tam suñu mbokk auditeurs yi. merci beaucoup Babacar Niang mooy directeur artistique bi Babacar ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay di nuyu auditeurs yi aussi ci dalal bi ngeen ñu dalal fii. merci mm -hmm. Abdoulaye moo yore wàllum communication ñu ngi leen nuyu Abdoulaye di am mbégte euh, dalalaat la <laughs> encore suñu plateau. <laughs> merci beaucoup Sylvie di fay lu bëri di nuyu auditeurs yi ak auditrices yu rajo Réew mi FM yëpp. Mhm. Euh, di wax ne kër gi sama kër la rek. voilà euh, donc euh, merci beaucoup mbokku euh, déglukat yi ndaw ñi ak culture loolu lañ fi waxtaanee ndax ku initier grand carnaval de Dakar xale la daanaka équipe bi yëpp je pense que c'est la jeunesse dañuy tàmbali avec la rubrique culture avec la rubrique euh, actualité du mois culture lañ fi nar a mbokk déglu ka maa ngi jéggalu euh, mm-hmm. donc actualité bi tey lu ci gën a fës mooy procès en appel bu baax Barthélémy Dias ku ne xam na ci mbirum affaire wu neex bi nga xam ne faatoon nañ ko atum 2011 moom la doon wuy ji tey euh, ma jox leen rek seen xalaat ngeen joxe seen xalaat ci mbirum politique bi ndax poli mbirum politique la wala dafa tombé <laughs> bon ñun ñun ay acteur culturels lañ. waaw voilà mhm. donc. Euh, euh, nekk ñu di prononcé wu ci politique bi daal. d'accord <laughs> mais tey euh, gis nañ événement yi fi amoon. Mhm. mars deux mille vingt deux mille vingt et un bi du moins mhm. ak mbirum Ousmane Sonko. tey la même chose pourrait se répéter avec le cas de Barthélémy Diaz. parce que ku ne xam na opposition bi ils vont pas se laisser faire. tey li ne mel bu amantoon tey mënoon na gàllankoor seen carnaval bi nga xam ne moom la ñuy waaj. ah bon comme ni ma ko waxee ñun ay acteurs culturels lañ. Mhm. donc euh, bon dañuy liggéey euh, bëri na ay acteurs culturels. yu mhm. nekk ci suñu carnaval bi. donc ñoo am yaakaar ne depuis deux mille vingt quand même euh, liggéeyuñu ndax Covid bi ñoo am yaakaar ne quand même euh, bi du yàq suñu liggéey parce que li ñu liggéey itam ñëpp a koy njëriñoo. donc fi ne nii. am na ñuy préparé wu ñoo xamante ne dañuy jóge ba gànjaay mhm. donc euh, bon am naa yaakaar daal ne politique bi du ci yàq dara ndax instant bi acteur culturel yaa ngi yaa ngi préparé wu mhm. ñi di def théâtre euh, ñi di def danse ñi di def musique mhm. ah euh, ak ñi nga xamante ne tam ñooy jeunesse culture urbaine bi donc instant bi ñooñu ñëpp suñu partenaires yooyu yëpp ñu ngi préparé wu pour ñëw participer grand carnaval bi et puis également médias internationaux itam Euh, ñu ngi préparé wu ñoom ñëpp ñu ngi ñuy bind di ñu laaj ay information ci programme beeg yooyu. Mhm. donc euh, événement bi moom ci fin d'année bi ah am nañu yaakaar ne dina am. et puis na tamit ne nit ñi. Abdoulaye soxla nañ soxla nañ aussi. ah féexal seen xol yi te li ñuy li ñuy fësal mooy suñu culture. Mhm. Euh, suñu vivre ensemble ak. merci Abdoulaye Lo Cissane. waaw comme ni ko Fatou waxee rek ñun li ñu ñor mooy développer culture. sénégalaise culture africaine culture monde bi yëpp. politique ñoru leen euh, politique duñu wax ñoruñu mais bu ñu mënee jàppale daal sunu activité ci jàmm réew mi yëpp nekk ci jàmm ñu loolu moo ñu soxal. d'accord waaw man de li ma ciy wax mooy je pense que dëkk. Mhm. su fekkee dañ ko bëgg yore bëgg mu taxaw ci jàmm rek la mën a nekk. Mhm. donc euh, je pense que su fekkee ni politiciens yi defar dëkk bi moo leen tax a dañu war a xool trouver terrain d'entente def lépp ci jàmm parce que àdduna bi coono kese la fu mu nekk nii. donc mhm. ce serait dommage yokkaat ci beneen coono supplémentaire. Mhm. Euh, d'accord donc euh, ñu ñëw rek ci suñu sujet euh, ngeen di waajal le grand carnaval de Dakar deuxième édition première édition bi ngeen amaloon ko en 2019 je pense que 2020 mbas mi moo tax mujjul am mën nga ñëwaat nga expliquer ñu lan mooy grand carnaval de Dakar pour ñi nga xam ne ñu ngi koy soog a dégg. waaw moom carnaval bi mooy euh, vraiment principe bi mooy euh, fësal ah ak rafetal suñu diversité culturelle voilà donc dañu créer benn plateforme mhm. boo xamante ni dañuy réunir ay acteurs culturels mooy ñi ma lim euh, pour permettre donc euh, expression diversité culturelle Sénégal mhm. ci événement bi mhm. fan la initiative bi jógee bon initiative bi moom yàgg nañ ci liggéey lool Euh, parce que ñun euh, suñu entreprise dafa dafa spécialisé ci communication ak marketing territorial donc boo waxee marketing territorial mooy aussi naka ngay fësalee benn dëkk pour que euh, économiquement mu euh, contribuer ci développement bi loolu mooy lan loolu mooy par exemple euh, communes yi ñoom ñoo yore culture ah donc euh, commune boo xamante ne effectivement yaa ngi def ay investissement industrie ak affaire yooyu yëpp baax na day indi emploi ak yooyu mais loolu xam nga doyul mm-hmm. àdduna bi du yemul ci def industrie dem liggéey ñëw toogaat mm-hmm. donc boo ci dollee euh, defar sa sa culture non seulement da ngay jox liggéey euh, euh, sa ay dëkkandoo mm-hmm. ba pare boole ci dinga rafetal image wu sa commune ba tax du ñàkk ne dina am ñu jóge bitim réew ñoo xamante ne dinañ ko ñëw seet culture bi nekk sa sa sa commune lan la. Mm-hmm. voilà loolu daal mooy mooy base u euh, grand carnaval bi te ku ñëw itam loolu mooy di nga vivre loo yeneen secteur mm-hmm. ndax képp ku ku jógee euh, bitim réew wala sax nga jóge feneen je sais pas man nga jóge dakaar mm-hmm. nga ne euh, yaa ngi dem Kédougou boo demee foofu xam nga di nga dal ci hôtel. Euh, di nga lekk di nga lekk tam ci restaurant. Mhm. voilà di nga peut-être consommer ci ci artisan yi. Mhm. ak loolu yëpp loolu daal mooy li ñuy wax benn euh, genre chaîne de valeur wala écosystème <clears throat> boo xamante ne euh, loolu moo ñu motiver pour ñu organiser grand carnaval de Dakar. d'accord lan la mën a apporter pour la jeunesse carnaval bi. waaw Sylvie c'est une très bonne question déjà li mu mën a apporter apporter jeunesse bi mooy déjà li ci njëkk li ci gën a tuuti mooy dañ koy fàtte mooy ñu ngi commencé perdre suñuy valeur ñun jeunesse bi boo xoolee suñu maam yi ni doon fonctionner suñu maam yi li amoon ñu ngi koy perdre déjà loolu grand carnaval bi parce que thème bi c'est contre et légende du du Sénégal et d'ailleurs mm-hmm. donc dañuy def tout ba indiwaat li xewoon démb fàttali xale yi lan moo fi amoon suñu maam yi lu ñu doon dundee loolu pour man déjà lu ñuy gañe la Mm-hmm. mais à part ça comme ni ñu ko doon waxtaanee sànq y a ce qu'on appelle les métiers de la culture. Mm-hmm. te jeunes yi ñu bëri ndeysaan xamuñu ko xamuñu métier yan mooy tourner autour de la culture. Mm-hmm. Sénégal boo nee culture dañuy foog ne fecc ak wéy la ñenn ñi dugal ci théâtre lu ñëpp sax donc am na yeneen yoo xamante ne ñu ngi ci ginnaaw yoo xamante ne tey jii bu ñëwee dinañ ko mën a découvrir dinañ leen ko wax ku ci mel ni suma grand Babacar bi toog moomu c'est un acteur de la culture boo xamante ne mu ngi liggéey ci culture te pourtant kenn xamu ko ci fecc kenn xamu ko ci woy kenn xamu ko ci théâtre mm. donc am na domaine bu muy liggéey keneen ak keneen noonu la demee donc s'il y a yoo xamante ne bu boobaa on va en discuter on va en parler dina jëriñ jeunesse bi lu ci lu bëri. d' accord Babacar métier de la culture yooyu muy wax yow en tant que directeur artistique euh, mun nga ñu ko énumérer wax ñu aussi euh, ban njëriñ euh, le carnaval bi di apporter jeunesse bi. waaw métier culture moom dafa dafa bëri. Mhm. parce que am na ay administrateurs culturels ay chargés de production euh, directeurs de production et aussi am na ce qu'on appelle les électriciens ingénieur de son dafa bëri suñ si am na décor suñ si duggee mun nañ fi pratiquement fanaan maintenant nous nu qu'on a de faire euh, ci euh, carnaval bi soo ñëwee ni ñu tegee village bi. ak euh, parade bi ni muy déroulé boo ko xoolee loo ci xool rek ça correspond ak ay métiers bien définis. Mm-hmm. donc loolu ci boppam nu ñu koy tegee d'ailleurs dañu dem jëlee ay élèves yoo xam ne ils sont ay élèves lu ñu à la MCU de Wakam maison des cultures urbaines ñoom bu ñu jàngee ba pare li ñu jàng dañuy ñëw versé ko ci carnaval bi pour apprentissage. Mm-hmm. c'est pour démontrer euh, à la jeunesse que ne lii c'est possible c'est un vrai métier parce que ñun métier yooyu moo ñu yóbbu feneen ci monde bi voilà. Mm-hmm. Euh, lu mu mën a apporter ndaw ñi aussi. ah li mu leen mën a apporter mooy déjà ku ci ku ci amul woon euh, liggéey mën na la inspirer peut-être nga ne mais affaire bi intéressé na ma nga ñëw boo ñëwee boo waxee ñun ñu booleel ak waa MCI ñu dugal la ci seen créneau de formation par exemple. Mhm. cest à nga fa jógee am métier boo amul woon métier du tout du tout nga gis par exemple ñu monter scène bi wala lumière di tàkk nga ne mais lii ça m'intéresse mun nga ñëw adresse wu ci ñun on trouve la porte pour nga dem formation. d' accord yéen kon da nga leen di jàppale. wala da nga leen di orienté. dañ leen di jàppale parce que man mi sama bopp formateur la ci MCU. c' est gratuit voilà bu waa waaw euh, enfin loolu ils verront ak euh, je sais qu'il y des aides en tout cas il y a beaucoup de d' aides waaw. Euh, madame Sarr pour le choix du thème contes et légendes du Sénégal d' ailleurs mën nga ma décrypter un peu thème bi pour ndaw bi nga xam ne mi ngi déglu te bëgg na participer. waaw parce que. contes et légendes euh, du Sénégal et d'ailleurs donc mooy lii Abdoulaye doon wax sànq mooy rappeler un petit peu bon suñu suñu culture suñu ay aada voilà xaw ko fàttali jeunesse bi et puis même ñun ñii sax ak ñu gën a mag am na ay contes yoo xamante ne euh, bon servir na de éducation par exemple wala orienté wala xalaatal euh, ak dal genre yooyu donc loolu muy <clears throat> muy principe conte contes et légendes bi mais derrière. Mhm. effectivement on a aussi euh, am nañ tam jeunesse boo xamante ne peut-être effectivement am na yu mu fàtte mais idée bi mooy boole ñaari c'est-à-dire dañuy jël partie plus un peu plus traditionnelle bi euh, boole ko ak partie plus contemporaine bi. loolu dina indi ay mise en scène yoo xamante ne euh, dina wane que yenn aada yu yàgg itam euh, dépassé wul voilà donc par exemple dinañ am seenu culture urbaine bu ñuy mélanger ak ak euh, raconter histoire mélanger ko ak ak musique traditionnelle mhm. ak yu demee noonu d'accord mhm. kan moo ci war a mën a participer ak naka la war a def pour mu participer déjà pour euh, participation bi dañuy am benn scène bu ñuy wax scène ouverte pour les artistes yi bëgg a participer. Mhm. mais <laughs> dinaa ko wax nag mais buñ ci xaar xaalis sur artistes yi di ñëw. pour wala artistes yi. artistes yi bëgg participer. artiste bu bëgg a participer ci scène bi mën nañu contacter ñu xool nu ñu koy dugalee ci programme bi. Mhm. mais c'est pas quelque chose boo xamante ne dañ koy def pour fayeeku si. dañ koy def pour bégal Sénégalais yi dañ koy def pour bégal population bi nekk foofu ci village bi ñuy créer et tout donc pour euh, ñëw ci tamit ba c'est à la place de l'obélisque ñi nga xam ne bëgg nañ ñëw comme euh, découvrir li fay xew ak yooyu donc date yi dinañ ko joxe c'est du 26 au 28 ils sont libres de venir foofu incha allah. Mm-hmm. bu ko defee espace baa ngi foofu ñu découvrir dina am activité yu bëri yu fay daw. Mm-hmm. kan moo war a mën a participer artiste kese wala. bon euh, loolu est-ce bàyyi directeur artistique bi mu mu mu wax ci. d'accord Babacar. ba euh, en fait carnaval bi c'est dañ ko thématiser déjà dañ ko thématiser donc dañuy am ay ay troupes bien définies ñi nga xam ne seen métier la déjà donc dañuy wax nga par exemple comme année bi lébu yi sont à l'honneur mais ñun dañu déplacé wu dem seeti lébu yi ñu ne ñoom mën nañu teg tableau bi ak tableau bi ak tableau bi suñ jegee ci lébu yi am na aussi asiko yi en fait dañ ko def de telle sorte que mënuloo ñëw nii rek yow kenn dugg mais bu fekkee trouble la trouble boo xam ne am na lu muy montré loolu mun na nekk mais par exemple benn personne individuelle comme sa ça va très difficile par contre am nañu espace boo xam ne espace compte la pour foofu ay compte la lépp ak beneen espace boo xam ne scène la Mhm. donc pour nga ñu nga mën fa dugg il faut ñu ñu xam d' abord lan la kooku di def mais mënul nekk nii rek personne individuelle nga tëb rek ñëw ne dangay ngay bokk il faut nga contacter ñu wax li def ñu xool fan la xaj voilà. ngeen dugal ko foofu. dugal ko foofu. donc euh, jeunes musiciens yi photographes yi artistes chanteurs. compositeurs voilà. auteurs. Mhm. ñëpp daal mën na ci participer ñëpp mën ci participer mais aussi dafa am nombre limite parce que espace bi mënul accueillir mhm. euh, autant de personnes parce que. si on met des stands stands yi da nga koy louer da koy fay toutes ces choses la dañ ko a jël en compte et là c'est on a pratiquement clôturé yenn choses mais ça reste encore un peu de place. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà. Ah. lan mooy doon seen programme. Ah, de toute façon bon événement bi moom tout at bu jot day am. Mm-hmm. donc euh, at bu jot dafay am thème donc euh, programme bi ñuy teg yëpp. dafay nekk en fonction thème bi. donc noonu la ñuy jëlee aussi ay comme ni ko Abdoulaye ak Babacar waxee. Mhm. ay euh, ay artistes yuy participer. Mhm. Euh, donc programme bi lan la programme bi donc VSD la vendredi samedi dimanche. donc ça se passe place de la nation moom la ñuy wax obélisque. Mhm. donc euh, ñett fan la yoo xamante ne dañuy installer li Babacar doon wax sànq li ñuy wax village du carnaval. donc village du carnaval bi place de la nation mooy lan mooy ay stand donc euh, dinañ am stand partenaire dinañ am stand euh, village euh, artisanal parce que artisan itam suñu ay partenaires lañ dinañ am tam benn espace bu tudd espace des des des productions culturelles mhm. donc foofu dinañ am diversité culturel bi ñu bi ñu doon laaj sànq métier de la culture yu bëri yuy mhm. représenté par exemple dinañ am euh, maison des cultures urbaines ñoom dinañ fa am stand dinañ fa joxe ay initiation expliquer ñoom li ñuy def def ay quelques démonstrations dinañ am tam benn espace bu tudd euh, contes et légendes foofu tam sur ñetti fan yi dina am ay contes ay légendes yu ñuy programmé yuy daw yu nit ñi mun a ñëw seetaan dinañ am tam espace boo xamante ne euh, théâtre la Euh, stand ak boobu kàddu yaraax suñu partenaire la aussi association mm-hmm. moom moo koy yore dina def initiation def ay spectacle euh, dinañ am tam waa Adafest ñoom ñooy produire ay euh, festival association la bu mag buy produire ay festival ak yooyu donc espace boobu produit diversité production culturelle bi dañuy boole nag divers métiers yooyu yëpp pour ñu mun a def ay démonstration informer population bi jeunesse bi di ñëw pour mu xam lan moo exister réellement en dehors de li ñu xam mooy malax bi ak fecc bi euh, et puis de l'autre côté dañu am benn food court bu ñuy def festival de grillade mhm. voilà buy daw tam euh, ci ñett fan yi ak produits locaux yi waaw moom kañ bienvenue <laughs> <laughs> am na tam euh, parade bi mhm. voilà parade bi donc parade bi c'est le samedi d'accord waaw ah, samedi la en fin de journée boobu mooy panal la daal. Mhm. donc mooy bi ñuy gis nag euh, ñëpp di défilé mooy troupe yi ñuy wax sànq euh, lébu yi euh, séeréer yi ak troupe yëpp daal yuy représenté en tout cas par rapport ak suñu thème bi ñu solu cosaan ànd ak instrument yi di parade te loolu ci boulevard ki centenaire ah boo jógee RTS ak ba obélisque mhm. voilà buñ ci buñ ci jógee nag après mu am benn concert concert bi ak El Hadj Keita la euh, Jeyla ak Rif mm-hmm. loolu mooy samedi bi mu jeex waaye dama tëb vendredi bi nag vendredi bi euh, waa MCU maison de cultures urbaines ñoom ñooy gérer soirée bi bu nekk soirée culture urbaine donc dinañ am ay slameur ay rappeur ñuy mm-hmm. fecc loolu yëpp loolu vendredi soir bi la d'accord donc après juste dimanche dimanche euh, mooy journée de clôture bi euh, ngoon dafay am benn sabar sabar traditionnel ak euh, dem ba Faye ak Seng Seng Rim loolu yëpp. c'est ouvert au public est que xale léegi mën nañ fecc sabar. <laughs> Ah. <laughs> ce sera l'occasion pour ñu jàng. Mm. parce que ñoom dañuy ànd ak ay fecckat professionnels. et puis c'est détendu mm-hmm. vraiment euh, voilà humeur la daal ak euh, célébrer suñu culture. d'accord <laughs> Abdoulaye amoon na yokk ci programme bi. waaw programme bi comme ni mu ko faatu waxee vraiment leer na trop euh, xanaa comme dina am benn partie boo xamante ne tamit mooy euh, pour les euh, les acteurs toujours de la culture ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci ay make-up artistique ñi nga xam ne ñu ngi def ay déco ay photographie donc on a benn partie boo xamante ne ñoom ñoo fay nekk. Mm-hmm. donc parent yi da nga leen di invité ñu indi seen doom yi dinañ leen maquiller ci bukki yi lëkk fàttali leen lii xewoon démb indi ko tey encore moderniser ko ak. ay xale ñoo koy def seen ay morom. Mm-hmm. donc ça va être chose de benn espace boo xamante ne day regrouper famille yi en fait en mm-hmm. même temps. Mm-hmm. donc téléphone yi yàq nañu WhatsApp bi kër gi dangay dugg ci kër ok. am na ku nekk ci ligne bi Rewmi FM salaamaaleykum. waaw man mel ni tëb na bu mën a duggaatee rek donc ñu wëy euh, organiser ngeen ko en 2019 euh, année bi lan mooy particularité bi. parce que c'était réussi en 2019. ah 2019 moom vraiment pour une première édition événement bu mel nii donc euh, voilà ça a été euh, ça été une belle réussite. Euh, waaw ñu jël auditeur bi ci ligne bi mi FM salaamaaleykum. ah maaleykum salaam. Euh, ñu ngi leen nuyu bu baax dalal la jàmm ci émission sans filtre da nga bëggoon participer. Ah, maa ngi sant baal ma yëkkati kàddu bi ñu dégg la vos invités euh, Fatou Babacar euh, que j'ai la chance de côtoyer ainsi que euh, Sylvie et voilà j'avais une petite question à, poser aux invités mm oui j'avais deux questions à poser aux invités allez-y allez-y alors euh, voilà je voulais savoir pourquoi avoir choisi cette, fin d'année parce euh, euh, euh, que dans la mesure où le carnaval, bon, traditionnellement, c'est plutôt la période de, de carême. Et moi... Allô waaw euh, mu mel ni coupé na man malheureusement dégguma bu baax question yi mais je pense que posé na ay question benn benn benn la laa dégg mooy pour lan ñu tànn période bi c'est très simple hein? Mm-hmm. bon au début effectivement euh, hasard la woon ñu tombé nii parce que première édition bi on a eu à repousser mais il se trouve que période de fin novembre euh, mooy début haute saison touristique bi fii donc Euh, comme ñuy wax rek le hasard fait bien les choses mm-hmm. ñu mm teg événement bi période boobu nga xamante ni mu nekk fête la bu sénégalais yi mun a wax ne ñu ngi accueillir si euh, seen seen ay gan. Mm. comme teranga bi ñu bi ñu xamal. Mm. voilà et période la aussi boo boo xam ne bëriwul trop événement. waaw mm. donc looloo tax euh, ñu tànn période et ma yokk si dara. donc effectivement am na carnaval période de carême mais bëri na carnaval yoo xamante ni c' est totalement en dehors ah. boo demee euh, Notting Hill à Londres boobu carnaval culturel la aussi comme comme ñun. bon c' au mois d' août. New York tam am na carnaval beneen carnaval culturel boo xamante ni c'est au mois de septembre et cetera et cetera mm. donc amul règle euh, totalement définie am na benn prince waaw oui oui oui parce que dans le monde boo xoolee bon ñi ñu ngi organiser euh, période avant avant carême bi ñeneen ñi beneen période totalement lañ ko teg donc mm. ñun am nañ raison boo xamante ne Euh, en tout cas ça correspond ak fii nii Sénégal. mooy mhm. ouverture période touristique bi. d'accord euh, man ngi la doon laaj tout à euh, def ngeen ko 2019 mu nekk réussite. tambour yeeg sabar yeeg jembe yeeg ngelu séeréer yëpp ci biir année bi 2021 lan mooy particularité bi. bon année bi dama ciy wax tuuti ba mu bàyyi Babacar. waaw particularité bi dina bëri mais peur que boo ko waxee da ngay dindi aspect surprise bi. Mm-hmm. en cas am nañu nañu am invité comme euh, Canada par exemple. Mm-hmm. Canada am nañu seen ay ballet yoo xam ne dinañ ñëw. Mm-hmm. mais interprété par des Sénégalais. ça c'est déjà benn surprise. par exemple moto de la gendarmerie. dañuy ñëw mais ci biir moto yi ni ñuy dawee am na lu ñuy dugal ci biir. loo xam ne ce sera vraiment une surprise. même asiko yi ñi ñi ñi ñuy faral di gis. mais cette fois-ci dañu koy gis en sous forme d'orchestre parce que mm. asiko en réalité orchestre la mm-hmm. mais habituellement li ñuy tàmbali gis mooy asiko bi nii rek mais cette fois-ci dañuy venir en nombre mm-hmm. et orchestre mm-hmm. parce que ci biir euh, parade bi aussi ce qu'on cherche à faire mooy nit yi découvrir réellement le fond cosaan bi quoi cosaan fu mu gën a profond par exemple soosi bi ñuy ñëw dañuy ànd ak seen propre sabar ñoom paa jémbe pas tur bi ñëw ak sa wuruba par exemple joolaay bi ñuy ñëw cette fois yi dañuy ñëw ak seen tëgg ak plus les masques. Mhm. donc lu ci nekk dañuy noonu lañ koy tëggee par exemple boo jëlee lébu yi le samedi sur la grande place dañ foog démontrer par exemple seen jamu ce qu'on appelle ndëri benn affaire la. kasak yi yëpp dañ ko fay mhm. wane. Mhm. c'est ça loolu mooy nouveauté bi année bi. Ah, ñu yokk ci tam bon façon bi ñu emménager espace bi rek. espace bi déjà ah, déjà. Ah. <clears throat> bi ñu ko emménager boobu comme di Babacar di wax rek dañuy bàyyi nit ñi ñëw découvrir ko mais xam ne dina am ay surprise yu bëri. et oui. le fait aussi que ñu regrouper divers acteurs. de pratique culturelle. Mm-hmm. Mm-hmm. loolu tam innovation bu mag la boo xamante ne dinañ ko continuer nag année bu jot. mais mm-hmm. année bu jot daal ñu indi dara lu bees mais nii aménagement espace bi déjà euh, voilà dinañ ko constituer de telle sorte que. Euh, immersion lay doon daal mais loolu nag il faut que nit ñi ñëw pour gis ko. benn benn affaire bu ma ci bëggoon yokk rek est-ce que Sylvie xam nga ni ethnie yam am Sénégal majorité bi dañu duggante mais xamuñu ko. ren dañu invité lébu ak séeréer. Mhm. am na lien bu am seen diggante. ku ko bëgg xam nag boo ñëwee ci jour boobu dinañ la ko mhm. expliquer. di ko xam gis affaire mais est-ce que ethnie yëpp dinañu am représentation ak région yi quatorze waaw foofu nag euh, malheureusement du mun nekk. Mhm. mais Covid bi moo ñu moo ñu bloqué. ak yenn affaires yi. donc du ñëpp ñoo xamante ni. bëggoon nañ ko def ñëpp ñëw. quatorze régions yi même waxuma Sénégal rek Afrique monde bi yëpp. mais peut-être avec le temps bu ñu jàpp bàyyee. dina dina dina mën a sotti mais de toute façon. Mm. ñii di ñëw daal dinañ bëri. Mm. waaw dinañ am représentant bu am ñaata à peu près ngeen di xaarandi. bon mmh, ah, su le, enfin, sur le sur le voilà euh, plan artistique il à peu près quatre cents artistes. Mm-hmm. Mm-hmm. Sénégal ak diaspora bi. Mm-hmm. non bi jotagul. mais après xam nga événement bi comme niñ ko niñ ko waxee rek. chaque année ñu teg chaque année ñu teg. dara lu bees ñu teg mm-hmm. dara lu gën a rëy mm-hmm. dañ koy teg ndànk ndànk daal ba ba yëpp ba mu àgg à son ba yëpp mët d'accord euh, gis nañu Sénégal xale yi euh, culture nekk loo xam ne ñor na leen surtout actuellement en door carnaval bi nga xam ne yéen a ko organisé lan ngeen jàpp ni tey moom lañ war a mën a def pour euh, xale yi dellu ci seen cosaan waaw déjà li ma ci mën a wax rek mooy du ma wax ne xale yi culture ñoru leen. Mm-hmm. mais dañ ko xamul en xam nga pour dara ñor la foog nga xam ko li ñu foog ne mooy culture wax naa ko sànq ci bi ñuy commencé du loolu kese du culture. Mm-hmm. culture dafa yaatu. donc carnaval bi. Mm-hmm. déjà teg nañ ko. mais occasion la tey pour xale yi ni ma ko waxee sànq grand Babacar wax na ko ñu xam lan moo nekk autour de la culture. maanaam boo seetaanee clip. vidéo mu neex trop mais li tax clip boobu taxaw lan la. je sais pas si je me comprendre am na lu tax clip bi taxaw ba ci bagagiste bi noonu la sa grand Babacar mhm. ba ci bagagiste bi ci la boobu donc loolu ñoom bu ñu ko xamee dina tax ñu gën a fonk affaire bi parce que dama lay jox benn exemple yow boo seetaan clip li ngay gis mais grand Babacar du loolu lay gis mhm. moom mu ngi gis kii ni mu tegee par exemple projecteur bi moo tax benn partie bi leerul mu ngi gis leneen ak leneen ak leneen mhm. donc yooyu noonu yëpp mu ngi ci daal. Mhm. Mhm. et puis et puis euh, ça dépend aussi ni ñu amener culture bi. Mhm. justement ñun dañuy jéem a indi dara lu xaw a différent euh, pour yokk intéret bi. voilà donc. Euh, loolu tam am na importance ci ci ci ni ngay approprier aux culture li ñuy jéem a def ak carnaval bi mooy un peu suñu identité daal li ñuy jéem a valoriser promouvoir ko même au niveau local. Mm-hmm. Euh, parce que loolu mooy premier apport culture man pour man booy wax culture d'abord mooy yow yaay kan foo jógee. kuy mm-hmm. sa maam lan lan lañ lan lañ indi lan lañ réaliser. Mm-hmm. et cetera et cetera pour man loolu mooy première chose euh, booy wax culture après nag y a les pratiques mooy li ñuy wane ñun nag loolu yëpp li ñuy boole. dém euh, koo defar daal benn mise en scène boo xamante ne nit ñi dinañ ci foo reetaan mais dinañ am lu ñu yóbbaale tam. Mm-hmm. Mm-hmm. mais euh, aussi aussi il faut que ñu dindi aspect culture égale caaxaan. Mm-hmm. parce que blocage boobu dafa bëri. dafa bëri trop trop trop trop ba ci au sommet boo waxee culture waaw mais ñun bon on comprend pas. tu vois mais or que culture tey jii mm. euh, facteur de développement la bu mm. doy waar tey boo demee France tey li fay dugg ci touriste mm-hmm. lan moo leen fi indi tour effet bi lan la mm-hmm. patrimoine culturel la. et gastronomie bi. gastronomie mm-hmm. lan la patrimoine culturel la. donc dafa am patrimoine voilà bu ñuy wax immatériel. voilà loolu il faut que nit di comprendre que su ko joxee valeur bu mu war a am. mais forcément affaire bi day yéeg. nga boole ci métier man tey par exemple métier bi may liggéey ci métier bi. daf may permettre ma dugg à des endroits yoo xam ne. Hmm. doo ko sax mën a xalaat. Hmm. président yi ñoo fay dugg. mais man dañu may fay pour ma dugg fa. Hmm. concert yi concert le plus grand concert au monde par exemple boo ñëwee Bercy wala Stade de France métier bi may def. man dañu may fay pour ma nekk ci première plan bi. donc là c' important or que yow public da ngay dem fay deux cent cinquante euros pour dugg. mais donc dara am na foofu. là je parle pour la jeunesse quoi ñu xam ne vraiment mm-hmm. affaire bi tamit boo bëggee dara aussi fa nga sonn mm-hmm. parce que suñu problème bi aussi mooy tuuti jeunesse bi des fois orientation bi c'est un peu compliqué mm-hmm. mais je pense que dañu leen joxul explication yu war par rapport à sa et ñun nag plateforme bi ñuy def yëpp ça va ba axer sur sa jeunesse liggéey développement économique. d'accord euh, ci côté boobu euh, côté artistes yi surtout ak seen clip yi parce que gis nañ Sénégalais yi euh, le plus souvent bu ñuy def bu ñuy def clip vidéo dañuy copier te duñu jël li nga xam ne ñun moom la ñu moom suñu cosaan est-ce que côté boobu am na yéen loo leen ci def. waaw ñun ñun lépp lu ñuy def ci originalité ñu koy teg. parce que déjà création musicale bi fii ci boppam am na problème déjà à la base. Mhm. parce que souvent dañuy liggéey rek ci ci ci ci ay même thème or que bu ñu euh, recherché bu baax ça veut dire que même ñoom les artistes yi nga xam ne euh, dañuy jouer musique par exemple ils vont comprendre que copie coller bi ñuy def foofu. Mhm. mais nigériens yi ñoom dañu def copie coller en restant eux-mêmes. Mhm. gis nga tey fu leen yóbbu. tey ñun ñii dañ dama xam ne dañuy copier li nigérien yi di def c'est-à-dire c'est comme que ñun dañuy toog xaar rek kenn def dara ñu la bii la mm-hmm. mais ñun duñ fa nekk jamais c'est pareil tey je vais le dire ici euh, y bi y a ceci y a cela délégation Sénégal dañuy yor rek Sénégal yi lañu leen woo invité lañu leen fii invité lañu leen fii mais pourquoi pas duñu invité nit yi mm-hmm. ñëw Sénégal découvrir mm-hmm. te bu ñu ñëwee. dañuy liggéey loo mm-hmm. tam sénégalais yi. sénégalais yi c'est ah, c'est ak secteur euh, mooy écosystème wax rek. tey boo jëlee deux cent personnes yóbbu leen Burkina Faso tu as fait dépenser deux cent personnes deux cent sénégalais participer nañu ci économie Burkina mm-hmm. Faso. Mm-hmm. donc effet inverse boobu war na mën a am. d'accord voilà. Abdoulaye bu amee Sani. daanaka wax na lépp ah, juste pour wax la ne rek ñun dañuy liggéey ci loolu lu bëri ci. nit ñi xam tamit lan mooy culture Sénégal tey jii comme ni mu ko waxee ci musique waa Nigéria ni ñuy jëlee seen musique defar ko dugal ci seen touche ñoom. Mm-hmm. ba foo ko déggee xam ne ñoom la. ci grand carnaval bi. Mm-hmm. dinañ ko ci gis. Mm-hmm. am nañ table boo xamante ne loolu lay def. incha allah bu gars yi ñëwee dinañ gis ne. liggéey nañ ci bu baax dinañ dégg musique bu bees comme ni niñ koy waxee musique bi xew léegi. dinañ ci dégg tamit touche boo xamante ne foo ko déggee. ci monde bi yëpp di nga xam ne. touche bi Sénégal la jóg. Mhm. Mhm. voilà écrivain est-ce que am nañ seen place ci carnaval bi. bon édition bi moom euh, am nañ ay quelque yoo xamante ne dañ leen proposer ñu bind. Mhm. Euh, ñu bind dara sur le thème des contes et légendes donc loolu dinañ ko génnee sur euh, sur nos plateformes euh, donc mais ci yeneen édition peut-être que yi dinañ ci gën a mun a am place encore. Mhm. c'est vrai que carnaval bi euh, moyen la pour euh, wane cosaanu Sénégal valoriser suñu culture. Mhm. aussi euh, yan jafe-jafe ngeen jànkuwanteel côté pécunier surtout. <laughs> foofu moom nga moom la ñuy wax xaalis mooy nerf de la guerre. Mm. <laughs> te comme li Babacar doon wax sànq. Euh, fii boo demee seeti di wax euh, da ngay organiser carnaval événement culturel bon euh, duñ la duñ la jël au sérieux daal parce que bon tu as beau leur expliquer peut-être li nekk ci ginnaaw mooy li ñuy wax ni yëpp partie développement économique bi et tout ça là mais c'est difficile ñu jël la au sérieux tant que gisuñu mm-hmm. donc métti na vraiment métti na métti na première édition bi dañ ko ñafe Euh, am équipe boo xam ne dañu tuddee suñu bopp sax les insubmersibles parce que lu ne daj nañ ko ci mais teg nañ affaire boo xamante ne nice mu mu mu attirer ay médias internationaux bu ñu def ci mhm. donc ren ren aussi euh, d'abord ñun ci ci ci équipe bi lañu la ñu compter vraiment ñun ñëpp ay bénévole lañ mhm. voilà donc euh, am nañ par contre ay ñoo xam ne ñu ngi ñuy accompagner mais accompagnement la par exemple boo xamante ne c'est soit pécunier soit technique technique bi nag moo ci ëpp donc euh, mais ñun am nañ daal donc euh, ministère collectivité territoriale nga xamante ne euh, comprendre na sens su marketing territorial parce que moom moo yore commune yi. Mm. voilà donc moom mi ngi ñu ci jàppale bu baax. pour que commune itam mun a jël bu baax responsabilité bu nga xam ne day indi développement économique. Mm. voilà donc euh, bon ak Sococim ñoom tam ñu ngi ñuy jàppale. parce que ñoom dañ nekk tam entreprise boo xamante ne au niveau local. Euh, am na lu ñuy def ci culture ci développement culture euh, Rufisque. Mhm. ak seen fondation bi. ministère de la culture dugalu ci loxo. bon euh, ministère de la culture waaw mi ngi ñu moom moo ñu nar a abal. Euh, comment ça s'appelle tout voilà. ce qui est logistique tout ce qui est waaw matériel logistique bi voilà voilà foofu lay jógee d'accord actuellement fan la affaire yi toll parce que on est à quelques jours waaw affaire yi à deux semaines je pense. waaw deux semaines maximum donc euh, affaire yi comme ni ko Fatou waxee rek souvent di nga am ay rëq-rëq yu ndaw yoo xamante ne ci côté organisation bi mhm. ñun moom bon comme ni mu ko waxee ñun ñu ngi ci à fond. Mhm. ñu ngi ci à fond donc peut-être yenn réglage yu ndaw moo ciy des. Mhm. te loolu d'ici si ñu yegg foofu dinañ ko pare incha allah. le nag mooy public bi ñëw fekkee. c'est ça public bi ñëw fekkee participer vraiment. pour ku bëgg ñëw seetaan day fay. non. <laughs> c'est gratuit. c'est gratuit loolu bi gën a métti nag. c'est parce que dañu def stratégie on s'est dit que pour événement bi bon nit ñi xamaguñu ko trop daal donc. Euh, euh, objectif bi mooy déjà offrir benn fête xam nga fête de rue yooyu nit ñi génn am nga gis càkkaaba yi gis simb bi gis tu vois xam nga fête fête de quartier populaire lu ñu mësul gis surtout à euh, Dakar yooyu yooyu lañ bëgg euh, animé ci ci ci Dakar bi mhm. donc loolu pour ça il faut que mu am population bu bëri bu ñëw voilà donc euh, pour l'instant option bi ñu def vraiment mooy euh, gratuité euh, des euh, des bah, des spectacles donc nit ñi dañuy ñëw dugg si village bi nu mu leen neexee mhm. concert culture urbaine bu jotee ñu ñëw taxaw obélisque seetaan Euh, concert beneen bi tam euh, nu mu tuddati parade bi ñu ñëw taxaw. tam seetaan euh, voilà et sabar bi concert El Hadj Keita et tout loolu yëpp c'est gratuit looloo tax. looloo tax. Mhm. bon montage bi xaw a métti. Mhm. mais vraiment c'est une option boo xam ne on y tient absolument pour populariser l'événement et puis pour nit ñi gis li ñu li ñu bëgg proposer lan la fan lañ bëgg dem. Mm-hmm. surtout. d'accord di ñaan parents yi aussi. Mm-hmm. que xale yi aussi ils ont droit à la fête. Mm-hmm. parce que c'est très rare image boobu dafay xaw a jafe Sénégal des fois nga gis benn parent te ay doomam yóbbu leen. musée wala fii wala fële donc fii dañ leen di jox musée bu mag. musée boo xam ne c'est ouvert. li ci xale bi parce que xale dafa doy waar. mun na ñëw xool benn affaire mu marqué ko. c'est vrai il va grandir avec ça. et un jour il va dire que man papa métier bii laa bëgg a mhm. def soo ko laajee foog gisee mun la fii mhm. tout ça c'est important mhm. rien parce que àdduna bi léegi dafa xaw a jaxasoo donc loo mën a dimbalee xale rek dimbale ko mais ci dans le bon sens donc li ma ci bëgg a dolli rek li ma ci bëgg a yi mooy sànq maa ngi ko doon wax sax yeggiwul dafa am lu ñu commencé perdre ñun au Sénégal c'est partout sax léegi maanaam ak téléphone yeeg yooyu raar ngay dugg ci kër gis famille yëpp bu booloo toog di defandoo dara ku ci nekk yaa ngi si ruq yor sa téléphone saa yaa ngi whatsapp yaa ngi instagram wala yaa ngi yooyu léegi nag village bi day permettre comme village ñu regrouper famille par famille non seulement famille bu nekk di nga ñëw indi sa doom ngeen vivre loo xamante ne peut-être gën ngeen ko vivre mm-hmm. mais plus encore day gën a raffermir lien yi affaire boo xamante ne dafa commencé dañ ko commencé perdre donc loolu daal la lañ ci bëggoon laa ci bëggoon mm-hmm. euh, dool on ne peut pas avec la langue et la culture d'autrui euh, yow lay laaj <laughs> Babacar boobu question tey culture xam nañ ni mën na nekk facteur de développement pour un pays euh, ci ban fànn ci naka mooy mooy comme li ñu doon wax rek déjà yow ñi ngi fii toog tey Sénégal ñëpp xam nañu Tour FM mhm. ñaata français ñoo xamul mu ni par exemple monument ma la Renaissance sax xam nañ mais ñaata Sénégal euh, ñeneen ñi ñu xamul Sénégal euh, xamuñu par exemple boo leen ne place de l' indépendance wala nga leen monument de la renaissance wala nga ne place du souvenir wala nga leen ceebu jën wala nga leen maafe wala nga leen bambara ou mm. tukulóor ou séeréer mm-hmm. le but du jeu mooy fexe ba loolu génn mm-hmm. par exemple la première édition bi am na ñoo xam ne Simba Gaynde bi daf leen jaaxaloon mm-hmm. complètement dañu sax téléphoné pour éviter ñu ñëw foofu ak ay ak ay gay Simba Gaynde naka la ñu imaginer ba jël nit daf ko sous forme de gaynde bi c'est c'est des choses là par exemple tey koo ne carnaval de Nice am nañu à peu près image parce que image image lañu di di di capté mm-hmm. d'abord mm-hmm. pour mun a poser ay question pour mun a mm-hmm. sob pour ne ah man di image bi dama ko gisoon ci internet bi carnaval de Dakar la ça va pousser à la personne déjà d'aller au Sénégal day ñëw pour carnaval mais tubaab bu ñëwee au-delà li ko indiwoon les les gëstu après c'est important parce que tamit je donne un cas comme ça man mos naa fi ñëw pour benn événement ak ay tubaab yu bëri mais sans ma yëg ko ñoom jot nañu dugg ci quartier yi xam ay famille pare na leen di leen yónnee ay kay ay studio ba tey jii may wax nii. sa fait mm. plus de douze ans. non di lii kañ culture bi moom ni mu munee indee mooy lien bi. ak mm. culture ak tourisme. Mm. voilà donc looloo tax ASPT euh, mooy agence de promotion de touristique. moom tam dafa comprendre tout de suite euh, principe projet bi parce que mhm. moom dafa nar a indi ay touristes Sénégal mhm. donc moo tax mu ñuy accompagner mhm. mais le lien est, est vraiment euh, comme ça quoi euh, culture ak tourisme moom ngay indee développement économique voilà parce que ku ñëw di nga consommer ku ñëw di nga dellu si voilà Euh, deux ans ngeen def ko à Dakar lu tax doo leen décentraliser un peu yóbbu ci région yi en fait événement bi mu ngi tudd carnaval de Dakar mm. c'est un choix parce que Dakar capitale la euh, Dakar aussi euh, infrastructure yi donc gën na fi bëre nga xamante ne ñun objectif yi ñu bëgg atteindre à terme en fréquentation Dakar moo ko mënagum antan mais par contre euh, événement bi bëgg nañ mu am représentativité mm-hmm. boo xoolee euh, au mois de juin bi passé nii ñun def nañ tournée régionale dañu dem chaque région bu nekk ñu toog fa waxtaan ak acteurs culturels yi pour seet naka lañ mun a préparer woo ñëw ci carnaval bi fii dakaar donc euh, malheureusement li Abdoulaye doon wax Covid bi tax na ak mënuñu mënuñu leen indi. Mm-hmm. Euh, mais à terme euh, li ñu bëggoon mooy avant chaque carnaval d'accord donc région bu nekk buy participer mun a teg benn mini carnaval petit à petit donc comme ça day am ay pré carnaval en région. Mm-hmm. et après ñëpp ñëw nag daje Dakar. Mm-hmm. pour def carnaval bu mag bi. Mm-hmm. Euh, daaw defoo leen ko est-ce que euh, am ngeen ay pertes le fait ngeen toog benn année. 2019 euh, ngeen ko commencé. waaw ah, ah, effectivement bon comme comme acteur euh, promoteur de festival acteur culturel yeeg yooyu yëpp vraiment 2020 moom. ak début 2021 bi ça a été très dur. bien sûr liggéeyuñu donc boo liggéeyul rek am nga perte. voilà euh, mais terewul tooguñu nag di xaar. <laughs> période boobu nga xamante ne dañoo toog mënuñu def suñu liggéey mais def nañ ko autrement. Mhm. dañu toog gën a dal gën a jël seet jafe-jafe yi ñu amoon euh, seet tam euh, naka lañ koy surmonter pour que ren événement bi gën a taxaw mu gën a am. Mhm. quelques minutes moo ñu deseel ma bàyyi leen peut-être. ñu poser la question. dañ lay laaj rek kon légende du Sénégal et d'ailleurs la ñun ñëpp ñoo ko bokk. Mhm. juste pour pour laaj la euh, ban résonance la am ci yow. Euh, par exemple est-ce que buñ la waxee loolu rek am nga benn conte wala benn légende bu ñëw saxee xel la tout de suite. bu ma war a mën a non doo doo nettali doo conté compter nag juste wax rek lan moo la marqué woon waaw <laughs> non boo nee conte et légende du ah, Sénégal ah. yow automatiquement loolu ngay xalaat ah. ay ay histoire le pluriel ay histoire yi nga xam ne moom lañ doon moom lañ doon euh, raconter ba nga nekkee xale surtout voilà ma laajte la rek une dernière question fa am surprise yu bëri nag autour de sa <laughs> d'accord d'accord euh, ban message ngeen di lancé pour euh, à l'endroit de la population mm-hmm. dernière question vraiment message bi mooy 26 27 28 événement bi c'est gratuit objectif bi vraiment mooy on on fait la fête voilà tous ensemble autour de suñu culture donc nit ñi nañ teew euh, nañ ñu suivre donc ci ci réseaux sociaux yi en plus sénégalais daa mmh. ah, bu <laughs> seen euh, festival grillade boobu noonu c'est gratuit boobu nag nag mënul gratuit <laughs> dégg nga waxante dëgg boobu moom ma ci intéressé <laughs> nañ la soumis de waaw non et nañ ñu suivre tam ci ci réseaux sociaux yi. Mm-hmm. donc xëy na Abdoulaye ci dernier mot bi dina wax moom challenge yu muy waaj mm-hmm. lancé pour que nit ñi mun a gagner ay parce que yenn partenaires yi ñuy accompagner mooy compagnie sucrière mooy mm-hmm. riz royal am na ay dons yu ñu def. donc euh, voilà Abdoulaye buy def challenge yi dinañ nit ñi dinañ mun di gañee ñoo jël si ko ci stand bi. d'accord Babacar. waaw mais ñun li li ma mën a wax daal mooy bu nit yi ñëwee nañ leen sécuriser déjà. ils seront dans un endroit bien sécurisé bien tranquillisé lañu mën a gis dinañ mën a lekk et puis dina mën a ubbi seen bopp parce que yora stan yi fay nekk yëpp cest à ku bëgg xam boo ñëwee laajte ñu wax la boo buggee formation boo bëggee métier walla loo fa gis rek mu intéressé la n'hésite pas parce que di gis organisateurs yi yore badge sol ay wala t-shirt boo leen laajee dinañ la orienté et puis en tout cas c'est comme si forme espèce ou plateforme la aussi pour recherche d'emploi plus ou moins ou formation je veux dire. Mm artistique. Mmh, pas et artisanat et, aussi et artisanat, de mhm. choses. parce que lu affaire yi laqatu woon ñuy yëg la ñuy génne. Mhm. voilà c'est ça. challenge yi lan la. balaa challenge bi ma la ne li léeboon loo may wax. lippoon amoon na fi. daana am bi ma amee ak fekkee <laughs> xaw boo ñëwee di nga ko xam. voilà. kon dina am ay lépp. lépp bii que ah, kan mooy lépp j'espère que. ñëpp. waaw non on a lébu yi lébu yi dinañ ñëw et puis public bi challenge yi. foofu laa jëm foofu maa ngi lay maa ngi lay bàyyi nga wax. <laughs> donc euh, comme ni xam nga yaa ngi nii am na loo xamante ne réer na waaw yooyu noonu après dag may fay ma wax la ko <laughs> léegi de toute façon challenge yi comme ni ko Fatou waxee lancé nañ ko donc commencé na à partir de euh, démb xam barki démb donc lépp la euh, maquillage artistique yi ñuy wax yooyu noonu make bi donc cosaan mm-hmm. boobu bu dee fecc séeréer nga mën bu dee fecc joolaa fecc kii nga def sa vidéo nga publier fi vidéo bi ci ëpp like vidéo bi ñu gën a partagé ci plateforme yi nga xam ne mooy TikTok Instagram euh, nu mu tudd. Facebook Facebook. Mhm. donc Snap aussi ñu ngi si. donc yooyu noonu boo ñu ko envoyé da nga koy publier sa page nga envoyé ñu ko donc ki ci ëpp euh, like ku ci ëpp partage. Mhm. bu boobaa comme ni ko Fatou waxee on a des partenaires ki nous accompagnent di nga am cadeau. te dinañ la présenter tamit ci tribune bi. ci mhm. scène bi gars yi gis ne kii. waaw nga participer. donc mu ngi noonu. mais challenge yi bëri nañ et pour ku ci bëgg xam dara nañu suivre ci grand carnaval de Dakar bu dee Facebook la. Mhm. bu dee Instagram Dakar carnaval ngay def bu dee TikTok c'est le grand carnaval mhm. aussi de Dakar. donc bu ko defee c'est ça n'est-ce pas Fatou. waaw bu ko defee. affaire yaa ngi fi daal affaire yu graaw. d'accord mhm. amul récompense. récompense yi dina am mooy loolu dina am. ma bàyyi la nga tàggatoo madame euh, Sarr. Ah. Ah, waaw jot na waaw mhm. ah, mais en tout cas Sylvie vraiment merci merci beaucoup pour opportunité bi ñu may ñu mun a expliquer événement bi euh, su auditeurs yi mhm. voilà et puis encore une fois euh, di di leen invité pour ñu ñëw ñu teew ci ñett fan yi euh, dinañ ci jàng lu bëri bëri bëri et puis dinañ tam Euh, bon amusez-vous là parce que mm. fin d'année bi mm. depuis 2020 sonn nañ mm-hmm. voilà on a envie de se descendre daal sonn sonn sonnal nañu mm-hmm. waaw <laughs> et ñu ngi lay xaar yow tam ak équipe réew mi <laughs> euh, Babacar waaw mais ñu ngi xaar euh, famille yi ñu ngi xaar euh, artistes yi ñu ngi xaar autorités yi mm-hmm. ñu ngi xaar tout le monde quoi fête bi seen fête la d'accord merci merci beaucoup Abdoulaye nga tàggatoo merci rek di la remercier yow yow moom vraiment amoo morom di remercier waa Rewmi FM di leen wax ne rek euh, carnaval baa ngi noonu village la te village moom ñëpp xaj nañ ci. d' euh, merci ma leen di gërëm bu baax yéen itam seen euh, teewaay fii di fàttali yéen ay euh, les organisateurs du grand carnaval de Dakar le vingt 27 ak le 28 novembre lañ di woo askan wi ñu ñëw massivement participer di leen gërëm bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel di gërëm Adama mi féete woon ci cabine technique bi mbokk ñu leen di daje mercredi bii di